démocratie parce que dañuy wax séparation des pouvoirs mais aussi on trouve pas une séparation des pouvoirs stricte entre le pouvoir exécutif a le pouvoir judiciaire même bu fekkee ne vraiment dans les faits on peut pas expliquer mais ci constat bi gis nañ ne a pas une séparation stricte entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire euh, je pense que dañoo war a ci li euh, li war a def genre consensus nu war cee mànkoo ñun ñëpp justice bokk ci maanaam nu fexe ba euh, toute considération émotionnelle ñu bañ ko dugal ci biir justice le calendrier de la justice n'a rien à avec le calendrier des, des hommes politiques la justice fonctionne de façon autonome dégg ngeen euh, en plénière bi euh, garde soo di naan day découvrir les décisions de justice en même temps que les citoyens c'est-à-dire que les les juges ils rendent la le ils disent le droit en toute autonomie et en toute indépendance tutelle bi mënu ci intervenir maintenant le reste c'est des c'est des des c'est des c'est des des options des choix wala ku ne na nga ko gisee mais la justice c'est pas seulement les entre les les hommes politiques d'un côté ou d'un autre mais énormément de décisions de justice qui passent et qui sont traitées la justice fonctionne de façon autonome tous les jours au-delà de de certains dossiers yoo xamante ne ñu ngi soxal les des hommes politiques mais le plus gros du travail de la justice c'est les citoyens en matière civile en matière commerciale et cetera et cetera mais c'est le constat le constat est là oui le, le constat est là c'est-à-dire ñun on fait que des constats ñun mhm. ñun on n'est pas dans l'émotion mhm. li ñu gis mooy tout simplement si c'est de l'autre côté appareil bi dafay dafay liggéey rapidement on a on on on a vu. Euh, le on le procès euh, euh, le le Malick aussi. bi nga xam ne ay révélation yu yu yu. def si assemblée nationale. mais ba léegi euh, les gens ont comme si on n'a pas envie de savoir. on n'a pas envie de bu fekkee. bu fekkee bu fekkee l'autre côté dafay dafay gaaw. bu fekkee côté bii la. mu mu yéex. l'affaire Covid 19. ak scandale yi ñu fa je pense que c'est beaucoup plus sérieux que li nga xam ne moom la moom la moom la moom la mettre. nu mu tudd sax. waaw Moussa Diop li mu li mu li mu wax peut-être mën na dugg dans le dans le dans le même siège mais la le rapport c'est c'est venu d'une institution. Mhm. Cour des comptes donc on peut vraiment jàpp ne c'est quelque chose de sérieux. oui mais mais euh, je pense que aussi bu ñu fàtte nii la justice ne se rend pas dans la rue il y a un principe extrêmement important mooy le secret de l'instruction la ñuy nekk di def ci Covid 19 Covid bi. yow xamoo ko man xamoo ko li ñu nekk di def ci révélation Matar Diop yow xamoo ko man xamu ko donc il y a des aspects qui relèvent de la confidentialité mënut ta nekk ci mënut a nekk ci ci ci non xam nañ lool xam nañ yàlla yàlla secret de la section mais mais rapidité bi c'est-à-dire au moins au moins mhm. ñu war nañu vraiment la justice c'est c'est c'est un appareil qui équitable

également la justice ne comme je l'ai dit ne se pas pas dans la rue le juge il travaille ça y euh, son chef c'est sa conscience il faut vraiment qu'on qu'on qu'on qu'on soustrait la justice de ce de de ces divergences là et qu'il travaille en toute autonomie maintenant le le calendrier politique le calendrier des hommes politiques n'a rien à voir avec le calendrier du juge lui il déroule son calendrier conformément au qu'il est en train de faire s'il considère que les éléments qu'il a en, en, en main permettent d'aller à un procès il va le faire s'il considère qu'il n'a pas encore suffisamment d'éléments qui permettent d'ouvrir un procès il va pas le faire c'est pas parce que les gens disent ceci cela qu'il va qu'il va organiser un procès en, en fin de compte li ci am solo mais wax dëgg bi bu fekkente ne da ngay dem procès boo xamante ne li ci war yëpp amagoo ko mais c'est un procès bâclé je pense qu'il faut il faut qu'on qu'on laisse la latitude à la justice de travailler dans la plus grande quiétude